أعوذ بالله من الشيطان في كل موده وفي الأوتان قراءة القرآن أمن من لحين ومن سخاوة ومن مكر المعين الحمد والشكر مع لله على النبي ولد عبد الله لله بي شكرك مع خليب مع النبي ولد عبد المطلب xam naa su ngeen déggee kàddu yooyu fi jàll day da ngeen xam ne am na lu xew lan moo xew ak fan la xewe sëriñ Amar Diagne moom Diagne moom sëriñ Mbaye Diagne mooy woote lu muy woote bisub alxuraan bi nga xam ne waaye juróom fa sëriñ Mbaye Diagne ku ne xam ne ne ak bëgg a mus a génn alxuraan waaye ku ne xam na ne ak royam mustawees sëriñ Touba bis boobii nag moom la ñu woote di ci woon ak képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah sëriñ Amar jiital ca kan muy sëriñ Momadou Guèye mii nga xam ne mooy jawri ni kër gi ab taawam toog nii den nag moom di sëriñ Amar sëriñ Mor ak i rakam ak mboole mbokki taalibe yi kon li jëm ci bis bi ak la ca aju ñii ñëw dana leen ko wax wax leen nin ko bëggee ak nin ci jubloo. di ci bis bu mag bi ñu jëm. muy bisub alxuraanul karim muy bis boo xam ne dongo daara yi yi nga xam ne ñoo nekkoon ci biir daara yi doon jànge ci daara ji xame fi ay xaraf yu bare bari ñoo ñëwaat nag ngir fàttalikuwaat daara ji waaye ngir siyaare sëriñ bi loolu nag ñun dongo yi lot nañ ci moo tax ñi ngi woo mbooleem adduna bépp leen tàllal loxo ndax fii nga xam ne mooy Njaañ ci daara ji nga xam ne moom la nekkoon doon jànge muy daara Serigne mbay Diagne day daara joo xam ne jan ci senegal ndax daara joo xam ne jàngal na ay nit yu bëree bëri ñu mokkal alquran lépp ñu def ko majjaanan muy gratuit fayyikuwun dara loolu moo tax nag ñu ñi nga xam ne ñoo fi jànge woon te xam li Serigne Touba wax ci ab donga ci sëriñam moo waxoon ne فكون دونغ بي داي هادي يال سيرن بي غير ترانغا غير ترانغا حرف جني تاخول مو جوت كن من ملني حرف جوني بارينا لول بونكو دون ترال اب سيرن كون نيغي وون نييب دي لين لوخو دي لين فاتي لي سيم فرام واخون ني ماتر الذين ينفقون امواله في سبيل الله كمثل حبة نبتت سبع سنابل في كل زنبلة مئة حبة والله يدخل من يشاء ليغي بي نك مو جوب سيتي war a nekk le 15 juin samedi le 15 juin lay dajeel ñuy wooñ ñëpp bëgg ñu ñëw jàpp ci nañ ci daan jàppe ndax sànce ya taxaw na lu baree bari tàmbali nañ ko tey dañ cee yaakaar jullit yëpp ñu jaaroon ci daara ji nag rawatina ñoom ñoom ñoom ñoom lañ ci gën a jiital fépp fu waay nekk itam di dégg sunu kàddu ci ci monde bi ci juróomi continent yëpp. ñu ngi leen di woo di ca sàkku seen ndimbal lu fi waay indi itam daañu la ko defal ci alxuraan defal la ko ci liggéey bi yàlla dogal na fa donga yee doon waroon a jànge ndaa fa nekk di tawte foofu moom lijjanti nañ ko ba ba tubaarkàlla macha allah defar nañ wanag ya am na sànce yu ñu fa yëkkati moo tax ñuy woote di soññi ñëpp képp koo xam ne kii daal am nga loo xam ne boo ko joxee ñu defal la ko ci yëfi yàlla ñoo ngi koy séentu di la ca xaar kenn bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn ñun nag dañuy wax ci kàdduk ñi nga xam ne jaaroon ci daara ji ñuy soññi ñépp di leen <clears throat> ñaax di wax lii kat de bis boo xamante ne bii ñun ñoo ko seetoon ba sos ko sëriñ bi dem ci moom mu rafetlu ko ànd koog nun kon bis boobu moo ñëwati il ni soññ kenn ku ci nekk lañ ci daa def nga xam ne bis ba ñëw na nga def ci baa nga def ci sax lu ko lu ko lu ko lu ko ndax bés la boo xamante ne bii ne ñun ñoo ko seetoon ba wutal ko bopp kon lu ci waay daa taxawee ñu ngi lay ñaan nga yokk ko te am na lu ci dolli ko sax loo xam ne bëgg nañ kenn ku nekk bàyyi ko xel muy mbirum jaayante bi ndax li nga xam ne si mooy e, sas wi kenn ku ne nekk e, warteef la ci yow da ko war a def jaayante nag moom kenn ku ne yaay seet lam la jaral wala fa sa doole toll nga def ko ci kon loolu ñu ngi leen ci soññ bu baax a baax di ñaan kenn ku ci nekk. nga dolli ci pasteef te xam ne bis bi sa bisa woote bu wana nit mën a woote ci àdduna woote lu gën a jëm ci alxuraan moo gën a kawe euh, sëñ Amar nag euh, wàcc nga yaa ki nga xam ne moo nekk sa kanam di sa doom di sëñ Mor ndax Njaga Fatim ba muy sëñ ci dëkk bi booba moom xamoon na ne day taal waaye tàkk gi dëgg ci sëñ Mbay lay lay génne loolu la koy dëggal ñaata taali jàng moo fi nekkoon ak xoolal li fi nekk tey ñetti nit ñoo daan tari tey ñu ngi tari juróom-ñett fu juróom-ñett fukki nit ñi ngi tari yaay daara ñoo fi nekkoon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 noo ngi noo nuyu bokki jullit yépp di nuyu bokki taalibe yëpp ci turu sëriñ Amar Diagne mii xalifab sëriñ Mbaye Diagne ak ci kàddoom di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu sëriñ bi nee na gannaaw bu mu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sant sëriñ Touba sant ay waajuram mi ngi seedeel ne sant na bokki jullitam yépp rawatina bokki dëkkandoom yi ma bokkal dëkk njaañ wala tund njaañ rawatina bokki taalib yi ko sëñ Mbay Jaañ booleel rawatina bokki boppam yi nga xam ne ñoom la bokkal njaañeen ci bis bi nga xam ne moom lay waajal muy bisub yàlla di bisub rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam di bisub Serigne Touba di bisub alxuraan nga xam ne wóor na ko ne day loo xam ne cër la bu mu doon doon ci waajuram sàmm ko ak saytu ko war ko waral war ko ci waaye moo jullit ñëpp ñoo ñoo ñoo ko bokk moo tax nag bi mu geesoo gis bokki jullit yëpp ànd kook moom ba tax liggéey bi mel ak si fii balay yëkkate kàddu du woote cant googu lay jiital ba noppi ndax defagul nañ ko juróomi yoon kon bii ñuy waajal mooy juróom benneelu édition bi waaye yëg na ne ñim ko bokkal ci mbokk ci tari bi ci ay jullit day mel na ñoo ko ci gën a sawar ñoo ko gën a bëgg ñoo ko gën a jàpp ba tax na lu waroon gis ci moom day woyof kon nee na mi ngi leen sant ci mboolem taxawaay yooyu jiitu yépp wëlbatu ko nag di leen soññ ci taxawaay bii nuy waajal muy gaaw fukki fan ak juróom ci weeru juin nee na mi ngi leen ci woo nam leen ci daan woo di ci sàkku seen teewaay ak seenu jàpp ak seenu taxaw nu raw na ngeen ci daan jàppe te lépp tam fas ko yéene ànd ak yéen xëy na bu nu dégloo kàdd yi fi jib te yëpp jibe ci kàddu sëñ bi ci ndigalal sëñ bi danañ xam ne kon bis bi ñaka doon waajal waajalaat nañ ko nee na nag fas na yéene bis bii ñu dëgmal ren joxe na ndigal ne nañ ko tudde sunu maam Ibrahima jaañ mi nga xam ne mu moo doon magi way jurum ba sëriñ Bay jaañ doon way juru baay Mor jaañ ak Baye sëñ moor ak baay Moussa ak sëñ Njaga Diagne ñoom ñëpp ndax nee na nun day lu nu am ci sëñ Bay ba di ko sante sëñ bay am na ko ci maam Ibra ba war ko koo sant kon nun delloo sëñ bay njukkal sëñ Ibrahima Diagne neen loolu la ci jublu ndax keroog ba ko way juróom ba yebalee mu jàngi bi mu dellu see fekk way juróom maam Ibra la fekk waaye nag mu taxaw ko taxawaayu way jur taxaw ko taxawaayu mag oof ko ba ñoom ñi ñëpp luñ xam ci biir maam kër kër kër maam Ibrahima Diagne lañ ko xamee te oofaay bu rafet bi ma ko waraloon ba ni sëñ bay bay kër boppam ci ndigal sëñ Ibrahima Diagne ba lii lépp fekk ko fi kon nee na moo tax bin tàmbalee tudd di tudd ay tur daara ji mu ne bala jox kenn ab cër na delloo njukkal magam joojee kaddu googu yi nag maam Baye Moussa Diagne mii fi teew teewaay teewaayu njaboot googu moom moo ko waroon a wax moo tax mu jox ma ndigal ne naa ko waxaaleel kon nee na Baye Moussa sëñ bi nee na na xam ne bis bi seen bis la yéen a ko moom nun yéen lañ ciy jàppale yàlla na yàlla eggale ci seen yéene ak sunu yéene ndax nun yi njaboot gi. xamuñu sëñ bay sax bay xam maam Ibra waaye dégg diggante maam Ibra ak sëñ bay ba bis bu ne bi dañ dañ ci jox ay ay référence kon su defee lii nun du bett du nu bett ndax dañuy wax ne lu sëñ bay am rek jàpp naa ne maam Ibra moo ko moo ko waral ndax jàng ñi bisi fekk fa su way kenn ku ne xam na xam na taxawaay na na méttee su taxee nag ba nga xam ne la waroon a am am nga ko te way jur nekk fa ka nga fekk mat na lam doon yàlla na yàlla yokk seen leer te dolli seen gërëm kon sëriñ bi nee na bisub alxuraan mi ngi noonu ñun ñëpp xam nañ Serigne Touba li ko alxuraan jaraloon kon julit bu ne alxuraan wala naa jaral loroo loola ndax suñ boom daa wax ne inna hada alqurana yahdi lilati hiya aqum waaye ba mu ko wax ba noppi la ci teg mooy wa yubashiru almuminina alladina yamaluna alsalihati an lahum ajran kabiran lam ci tegaat nag moom yàlla nañu yàlla nañu um ndax wa anna lazina laa yu'minuuna bil aaxirati ci teg nee na ñi alxuraan mooy li nga xam ne moo moo mën a téye nit ki ba jubbanti ko ba addunaam jag alaxiram jag loolu yàlla wax daan nag waaye nag mbégte la neel jullit ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla tey jëf aw yiw ndax xam nañ ne yoolub yàlla bu rëy moo leen cay fekk kabira na yàlla nag kenn xam ne mu toll kon suñu nee toolab yàllaa ngi nii képp koo xam ne ab jullit nga baa ngi ab taalibe te bëgg yoolub yàlla kon nee na mi ngi lay woo ci lii yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp lépp loo xam ne ci kàddu gi des na na ma xam xam sëñ bi ak matam ak sama matadi dañoo bokkut ci man ci ci sama matadi la lay doon waaye moom nam ma ko wax la woon gën naa ëpp lii waaye ngeen xam ne rek mu gudd ak mu gàtt mu jub ak mu jubadi soññee rek lañ ci jublu yàlla na ci yàlla dimbali jërë ngeen jëf waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki taalibe yi bokki réew mi ak bitim réew woote bi yàllaa ngi de le sëñ Muntaxa Mbàkke wax rek mooy taxawaay sëñ Amar ku dem ma dem ku demul ma dem li mu li njabootam am lépp def na ko ci alxuraan te lu ko waay jox mu defal la ko ci alxuraan ñoo ngi sant ñoo ngi gërëm di tàllal ñëpp loxo lu nu waay jox ñu defal la ko ci.